baax ñëwaat nañ cees Thiès Thiès Thiès kaay xaw ma Thiès gaar xaw ma nu ko gars yi di waxee naa ko laajte après <laughs> ci ferme di Kajoor ferme di Kajoor ñu fekk fii laay Diallo laay Diallo nag peut-être que ci image nii xëy na bëriwul lu ngeen ko gis bu bu ne bii bu nekkul la première fois mais nag ci wàllum élevage nag moom gars yi dof yi xam nañ ko quoi <laughs> waxuma nag ci moja moja gu ndaw gi waxuma ñooñu laay <laughs> naka moom. sant sant papa ñu lay siyaar wér. laay gars yi dañuy dégg tur bi rek. Mhm. laay jàllo laay jàll boor bul laay jàllo borom maal yi. Mhm. léegi laay ngi nii fan ngay wax ci loolu. waaw waaw waaw gars yi dañoo baax rek naan laay jàllo borom boor buli laay jàllo borom rod yeeg yooyu noonu. des fois nga dégg ñu laay rot des fois ñu laay boor des fois ñu laay leneen. dama doon éleveur nag dama di ambulant rek. <laughs> dama di <laughs> bàyyi dóori nag parce que boo fi nekkee naan bay ambulant gars yi naan kii parce que gars yi dafa am ñoom ne dañoo mel ni man ko uh-huh. ñoo xam ne fàgg daaj lañ xam. <laughs> boo nee maa ngi góorgóorlu ne non waaj neen de góorgóorlu. kon uh-huh. kon day mais laay mii du ambulant kii éleveur mag a mag a mag la. naka naka naka kañ nga dugg ci ci ci ci affaire affaire xaj. Uh-huh. waaw affaire xaj euh, depuis 2015 depuis 2015 euh, maa ngi ciy concentré wu depuis 2015. waaw maa ngi ci voilà maa ngi ci di di ko benn bennal laal waaw yoroon benn dog allemand boo xam ni daanaka doo dog allemand pur sang yi dog allemand boo xam ni dafay duggoon ci importé ñu importé koon mu ñëw daan ko booleeg berger allemand mais daan def taay yu rafet taay yu impressionnant ndax euh, Sénégal mënuñu woon xaj noonu voilà léegi nag euh, moo taxoon ñu tuddoon kon dog allemand dog allemand boobu ci laa tàmbalee di ko tepp teppal daal di ko tepp teppal waaw ci jamono yi laa ci duggoon mais nag dafa amoon naa sama xaju bopp boo xam ne nii kii euh, mooy rottweiler loo xam ne moo nekkoon sama xaj voilà ndax mën nga nekk éleveur yor nombre xaj nombre race ba mais da nga ci am xaj boo xam ne mooy say mooy sa race préférée d'accord mooy rod voilà boobu bi ngay am rot bi boobu commencé go élevage wala après nga commencé élevage après non ba am rot boobu euh, def def concentré mooy pour jaay ak jënd def élevage noonu parce que suñu ko dañu amoon rottweiler hmm. amoon nañu ay berger aussi hmm. Eh, jamono yooyu berger suñu daan am berger wala ñu am am euh, root sama mag docteur vétérinaire la docteur papa ali diallo mhm. mooy sama kilifa di sama lépp moom laa sama papa la sax ne waxuma la mag sax waaye ñëpp ko xam ci Thiès ci wàllu xar mhm. léegi euh, yooyu mu daan am dañaan am moom ak soxnaam dañoo bëggoon dañoo passionné woon aussi ci xaj mhm. dañ daan jël liste lañ daan jël suñ jëlee liste un ba fu mu yem rek ku bëgg léegi nag dañ daan daan may su suñ juddoo xaju ñu ne numéro 1 numéro 2 numéro 3 ñoo ñooy am. Hmm. su après ba fu mu yem su amaatee ñu defaat noonu. léegi nag comme man euh, kër ga fekk ñu juste ma ñëwaat fekk am defoon naa benn voyage yu ndaw ñëwaat. Hmm. kër ga xawoon na manqué tuuti xaj ci laa commencé andiwaat xaj kër ga. d'accord boobu foo ko doon jëlee xaj yooyu noonu. non xaj ba maa ko jël sama benn xarit bu euh, ñaan fara sama benn xarit laa moo doon yor xaj ma jël xaj ba indi kër ga. léegi nag di def accouplement ci man ci boobu. Mhm. suñ juddoo nag doom yi dañuy rafet. Mhm. nit di ma ñaata ma jaay tàmbali nag may naaj ko comme nag maa ngi jaay te sama amoon naa sama xaj préféré ndax amoon naa benn rot bu góor tamit mu mu mu mu réer. Mhm. ba mu réer fa yar guddi lépp dama daan wëri. di wëri xaj bi su baa léegi nag loolu nekk desoon sama bopp bi nag ma ne nag fa ma wuti rot bu baax fa ma wuti rot commencé dugg Thiès wër dugg ndakaaru yàlla daf ma xamante ak euh, benn waaye dresseur bu ñaan waxaab mu boole mag benn copain bu ñaan euh, max magay di ko nuyu di ko siyaar borom baax la magay hmm. dëkk liberté 6 ma fekk fa mu yoree xaj rod yi rod yi nag euh, rod yi rafet rod yi xam ne aussi ak ba ma liggéey aussi ci la ma ci jaay benn femelle femelle boobu nag moo commencé moo jur njaboot gi. mooy boobu bi nga njëkk am. voilà moo jur jurwaat na benn rot maal. Hmm, boobu mu ngi ko jëloon ci kër Amadou Aydio mooy euh, Rottweiler maal Chaka. rabe jaarale ko ci béy benn copain sama benn grand. di euh, moom mu ngi dëkk euh, Escape Urbam. daanaan la béy champion la nag. Hmm. kookoy champion bi la kooku nga war a seeti. <laughs> foofu nag ci laa tàmbali yor perrotte. perrotte bi jur. ma commencé dugg ci Bawër. ainsi de suite dugg ci Kaan dugg ci Bercy dugg ci nangam dugg ci nangam. ba fi ñu toll nii waaw. tey tey tey jikkoy root parce que tey euh, gars yi gars yi lay woowee laay root moom juumuñu quoi. Mhm. <laughs> parce que nit lu njëkk si moom rek ah, ah sëñ Fallou. Mhm. nit lu njëkk si moom rek dañ koy c'est-à-dire que da ciy da ciy am mhm. benn amour am ci benn benn xam-xam bu leer a leer. tey boo ñu doon euh, leeral nga ne jikkoy root lii ak lii la. ci côté santé côté wér-gu-yaram côté intelligence am. par rapport yeneen xaj yi. waaw rot moom da xaj boo xam ne xaj bu bu stable la bu stable tey dal am caractère boppam maanaam am fullay boppam moom noonu la mel santé compliqué wul ndax fragile wul aussi moom dafa robuste dëgër na te boole ceeg intelligence am dafa stable moom dafa dafa dal hmm. te boole ceeg noonu la bëggee maître am rot noonu la bëggee mais li ma ci gën a mooy fullaam maanaam euh, fo nga ko yemloo ko yemloo bëriwul bruit te noo la amee collecteur boppam. bëriwul du du cëppi cëppi souvent fu ne mu dugg fa. non bëriwul bruit bëriwul euh, bëriwul wow bëriwul désordre. moom su gisee mètre nag moom day calli calli. su gisee mètre dina faw dina kaf dina nag mais noonu la stable te noonu la amee fulla mhm. waaw lu ko lu ko yeb yombul. dafa kal dafa dafa dal te boole ceeg dafa am fulay boppam même soo ko dressé wul sax moom ci biir bët ak ci biir nekkee nag moom rek daanaka da koy liggéey waaw day am dressage boobu ci biir nekkat du ngeen nekk moom rek sax nga dressé ko rek moom day day dégg daaj d'accord Sénégal nag dañu bëri euh, lu ñuy lu ñuy jël sommi bi booleeg maafe bi rek c'est-à-dire créer dara tuddee ko dara bu leen neexee euh, dañuy jël rot xaw ko jaxase bi finalement boo gisee tey rot doo xam ne lii rot la da ngay gis yoo xam ne da nga koy xool mm-hmm. du ñu di woowee nu ñu ko mën a xàmmee dëgg-dëgg. waaw xam nga loolu nag euh, du fi gaaw a dañ dina fi muy dañ nag muy dañ nii kaara mu ngi ci tànk ndax gis naa ci sama boy boy yoo xam ne ñu ngi ciy liggéey lu doy waar ñun tamit ñu ngi ciy liggéey ñeen ak ñu ciy liggéey lu doy waar hmm. ndax ñu ngi xooli champion yu nekk bitim réew di ko indi fii Sénégal man na jëlewoon naa fi benn champion boo xam ne maa ngi ko jële bitim réew euh, France su benn suwayl indi ko hmm. di ñu ngi ligne boobu ba léegi ñu ngi koy yor ci rod yi ligne boobu ñu ngi koy yor mais loolu du fi gaaw a dañ te mu ngi dañ nag mais dafa gaaw parce que ñu Sénégal bindoo ñu xaj maanaam ñu topp ñu xaj ñu liggéeyu leen ñu dañ fay am suñu race bopp muy muy muy bataari ko muy sunu sunu lawbéy waaw ah. lawbéy sa race la euh, sunu sunu xaj culture xaj hmm. léegi nag yooyu suñ ko yoree ci kër hmm. euh, kenn yor fe benn root hmm. mënoo ko dugal amoo femelle mënoo ko dugal fenn furul foofu ci yooyu la tàmbali woon ci yooyu lañ tàmbaloo di dugal nga gis muy génn ay croisement hmm. muy mel ni comme boucheron wala muy gar wala nga gis rot hmm. kenn yow nga yor berger man ma yor rot xam sama berger nekk chaleur wala may yor ñaari ñoo xam ne ñu nekk ci kër gi fon ñu tëbante hmm. ndax suñu expérience tollu guloon foofu yooyu nag mooy jur xaj yi mooy jur comme yooyu ngay wax croisement yooyu mais quand même euh, mu ngi dañ yooyu ñu ngi dañ ñu ngi dañ ñu ngi ciy liggéey ñëpp a ngi ciy yeewu te mu ngi dañ voilà tey tey fii ci ci élevage bi est ce que tey ku soxla woon Euh, rot pur sang mën nga ko fi am koo xam ne maamaati maamaati maamu rot la c'est-à-dire raxul daray daray da maam daa day mel ni kaña papaam ak yaayam ak mm-hmm. maam yëpp nekk ay kaña moom da maam maamaati maam yëpp nekk ay rot mm-hmm. est-ce que am na fii si élevage bi waaw am na fii ci élevage bi am na fii te mu fi bari carrément mu fi ah, bari maanaam fii nii ci ci ci kër gi ci ci élevage bi ci kër gi am na fii ci kër gi am na fii soo xoolee ay euh, du jaar ci koŋ jaar ci fariko jaar ci kenn ñoom ñu ngi fi ku jaar ci euh, dur sax comme même Alice boobu mooy bu xaj bu ma njëkk a jënd sax. Hmm. kooku Max mu ngi ko jënd ci euh, France la jóge hmm. mooy tudd arc maamam. kooku te kooku ban année ba léegi mu ngi ci élevage bi yooyu ñu ngi fi maam maamaate maam maamaate maam ñu ngi fi. Hmm. franchement ñu ngi topp ci liggéey te du ñu bàyyi. ñu ngi ciy topp waaw ñu ngi ñu topp ñu ngi ciy liggéey lu am solo. prix yi nag nee nañ ma damay yàq sa prix xaj. Ah. loolu moom bu leen laay dégg damay élevage loolu dafa nekk ci aussi tamit ak fi nga yaroo fii mënoo fay ñëw te doo fi jëlee nga indi am loo yor te mënoo ko fay jëlee xaj mënul nekk d'accord waaw te soo fi ñëwee dinañ la su fekkee sax dañ la xool teg la ci charte sax même soo day joxe lii dese lii wala nangam na xool nay amee lu baax ndax loolu moo ñu ñor mooy élevage moo ñu ñor avant budul xaj yi dañoo nekkoon ci xar Mm-hmm. te noonu lañ la dundee ci xar yi. Mm-hmm. waaw am na xar yu bari yoo xam ne nii xam naa ne peut nekk ci wàllu xaj rek. waaw ah. ñoo xam si wàllu <laughs> ci wàllu xar yi <laughs> suñu ma gisoon dinañ xam ne carrément wala ñu ne ñu ne doc rakk docteur Diallo rek ah. vétérinaire Thiès ñoom dinañ xam kii moom xar la gën a xam que lii muy wax que xaj la ah. voilà voilà loolu. ban numéro lañ la mën lañ la mën jotee. waaw numéro bi mooy 422. 77 77 422 87 46. boobu mooy numéro ba am whatsapp mais am na beneen numéro mooy 77 928 04 04. boobu amul whatsapp mais mën nañ ma cee wuy ñebe naa cee wuy. laay laay boobu gaa yi ko bëgg gaa yi ko bëgg ah man bi ma ñëwee fii fekk fii ay boobu. Mhm. Euh, damaa ne gars yi wax ay laay kii euh, Fallou naka la laay laay rot. Mm-hmm. gars yi du ñëw jub man man boobu man laay boor laay wax fii boobu dikkee ay <laughs> ay dofi boor nga fiy fekk <laughs> ay dofi boor yu punkal a punkal. <laughs> Ah, waaw la génn si benn te nga ko yokk ci loolu nee mu génn si téye ko. waaw boor waaw boor moom. ci lépp lu ñu nekk rek euh, dañ ciy concentré pour jëm ci am lu pour lu baax. Mm-hmm. pour am ci am topp. waaw pour jëm ci am loo xam ne mooy meilleur bi. ñun ci la ci la ñuy ci la ñuy liggéey. waaw jëm ci am topp. moo tax. Euh, uh-huh. te nga tëye ko boole. Mm-hmm. <laughs> Eh, eh. Eh, bi moo tudd naan. mooy jëloon euh, bi moo jëloon euh, moo jëloon championnat bi premier. voilà moo jëloon premier bi ci seen Demba ndax moom mooy moom fekk fii loppati ma jël ma yóbbu ma nee naa man xaw ma yii ma du ma mënu ma noonu dinañ dem <laughs> ba nii et puis voilà. d'accord moom yow yaa ko juddule wala da nga ko importé. non kii non kii param importé lañ mais juddlu ma ko sama benn waay laa ko jëlee. d'accord ba ñaan dogo dëkk Mermoz waaw fa laa ko jëlee ci moom. d'accord mais bokk yii fi nekk yi ñu fi nekk daanaka moom bokkuñu bokkuñu bokkuñu dara. d'accord dañuy jéem a xool ku mu bokkal ak ku mu bokkul ñu séparer leen. di jéem a xool daal di gëstu pour mën a am leneen lu gën daal. d'accord mhm. kon am nga fi ay maal yoo xamante ni boo toppee ba seen i maam sax amul lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu daje am nga maal bu nekk daal am nga foo ko jëlee tout. waaw maal bi am na fi mu jógee femelle bi am na fi ñu jógee te duñ bokk élevage te dinañ leen jéem a liggéey di tey seen sët di jéem a boole ak leneen waaw ci noonu la ñuy liggéey di liggéey ma surtout jéem a xool sëdi ndax mu jëpp man sama yëpp ci sëdi lañ koy la ñuy tàmbale ci sëdi waaw ci sëdi daal la ñuy tàmbale d' accord mhm. d' accord lan moo lan moo lan moo la dugal ci ci ci ci bëwër bëwër ba dama demoon sama benn xarit ndax moom doon def comme xaji rek sama xarit ñu naan sama mag la sax laay jéy laay jéy dëkk dëkkoon njaay ñoo calme ah bii kër dëkkoon njaay dem fa benn xajam di tëbu mhm. ak beneen maal mhm. jour boobu taj rek laa xool rek mu impression comme man damaa bëgg xaj. impression jour am lu newoon sama poche ko ni ko xaju si jure am naa ci. kooku ci gëm yàlla boobu. ak ci ak ci bëgg-bëgg. xam nga xaj bu tëboogul. tëboogul yéegagul sax <laughs> yéegagul ma ne ko xaju suñ tëboo su juree bëgg naa ji. noonu moom moo kooku xaj boobu nag moo tàmbali moo jur kii euh, mu ngi ci cage bi moo jur ah, ah. moo jur mimi parce que moo jur daanaka yenn xaj yi ngay dégg biir Ndakaaru champion yi ngay dégg yëpp daanaka moo leen jur. d'accord mooy Mimi. d'accord mu ngi ne est-ce mën a génne Mimi tuuti ma xool ko. waaw ah. am na fi xaj boori am na fi kan kan am na fi Mimi. am na fi Mimi Mimi xam nga premier ministre nag ah maa ngi koy jégalu. Ah. premier ministre loolu la rek. waaw cofeel waaw daf ma neexoon 14 millions Sénégal daf ma neex. <laughs> par rapport ak discours am. ak ak taxawaayam. dafa xaw a masque dëgër daal dafa xaw a masculine. te premier tamit la ma desaan daf ma takkoon trop. daf ma takk ba léegi nii daf ma takk su kenn su ma jege day xeex. ndax takk ndax takk bi ma takk ci laa ko tuddi woon mimi nag. voilà tuddee Mimi. d'accord am na benn doom jox bi ñaan du ñaan sumbulu. sumbulu moom laa ko tuddee naa ko sumbulu tamit. kooy sumbulu bàcc sumbulu bàcc li bu yitte yàlla. <laughs> jafaram laa ñëw xaas. ni tey ma ndax parce euh, kër yi ma doon joué film kër euh, ñoom kii kër docteur Ndiaye ñoom. waaw waaw seen film Zozo yooyu noonu. exactement juste fa doon dugg doon génn ndax xaj boobu daanaka maamam fa la nekk. d'accord moom mu joué si film dot instant yi boobu macha allah moom dafa xew ba léegi dafa xew sax. ci laa ko jëloon inspiré tur ba nag tuddee ko Sumbulu. d'accord voilà d'accord. Mm-hmm. am na Mimi am na Sumbulu. am na Mimi am na Sumbulu am na Queen. Queen waaw ah, ainsi de suite waaw. Ah. d'accord mm-hmm. d'accord tey tey tey tey Boor euh, gis nañ ne euh, tey Sénégal am na ay Boor ñi seen museau yi dañoo gudd. Mm-hmm. ñi seen bopp yi dañoo ngande. vrai Boor parce que man euh, am na benn waay ma xam fële bu dëkk yéen Babacar ma koy nuyu. ma nekk naan Babacar moo moo fi mën moo fi mën moo fi mën. Mhm. léegi nag xaju Babacar fii la jógee. wala <laughs> man tey waaw damay baana baan damay bañ man maa xam quoi <laughs> li tax may a waaw ndax sax waxtaan. waaw ngeen ma am naa boobu ma ban xaju nga ne ma am naa boobu ak boobu ko jëlee yeer maa ko ban yeer ngeen ma ci Babacar ma ne ko Babacar kooku sama jarbaat la loolu xam naa ne su ko déggee dañuy rayante. <laughs> sama ma ne ko kooku moom sama jarbaat la. Babacar waaw maa ko jox euh, bëggu li mu yor maa ko jox waaw. mais man di nga ko jox moom man doomam laa am. te fi nekk nii lu waaye wax nag ma teg ci <laughs> am naa fit boobu moom. <laughs> gis nga war a mel monde élevage dafa doy waar dafa doy waar da jox diw dox diw jox diw. waaw noonu la demee. te Babacar li mu joroon moom maa ko jox moom. sama nit la sama waay la su baax woyof voilà. d'accord mais tey bóor naka lañ ko mën a naka parce que man bóor yi ma gis fii. Mhm. ak par rapport yi ngay faral di gis. dafa xaw a am différence dafa am ay xeetu bóor yu am wala. wala mu am na am na xeetu bóor yu am te aussi tamit am na liggéey bu àggul. d'accord am na xeetu boor bu am xeetu booram mooy xeet yoo xam ne dañoo pare. Mhm. waaw standard normal yu njool ak yu gudd nangam ak yu gàtt day am. Mhm. mais ci am na ci yenn xeet yoo xam ne ni daanaka dafa am fu mu jaar mhm. fu mu jaar par rapport mu jaar ci ay dog de yi wala mu jaar ci ay yeneen xeet wala yooyu wala mu jaar njaxase ko dog allemand mooy li ma wax rek. mooy maanaam liggéey bi daanaka Sénégal liggéey bi moo pareegul. parce que euh, man damay yor euh, boor bul. fàllu yor dog allemand. maanaam foro du yor dog de kanaari mu bëgg xajam tëbu amul fu mu ko yóbbu te bëgg na doom xajam jur ndax dundal gi metti na te bëgg na xaju jur su ko jaayee sa mën cee nangu wala mu jéem a xool na lay mën a amee lu baax mhm. kooku pour nga iñaane ko lay xaw metti mën nga koo jël tëbal ko doom yi am na ñoo xam ne nii seen seen loxo euh, diisul amuñu xaju tool lañ bëgg hmm. xaj boo xam ne dañ koy sànni seen tool yi hmm. ñii xaju 400 mille lañ bëgg ñii xaju 200 mille lañ bëgg ñii xaju nag parce que seen doole moo yamul hmm. te bokkuñu gëm-gëm ci xaj am na ñoo xam gëmuñu xaj soo leen joxee xaj 50 mille ko jënd am na ñoo xam seen euh, am am 50 mille la toll ñooñu suñu bëggee nga leen ah kii de mooy papa ji kii mooy yaay ji ñu gis ñu xam ne luñ jënd mais des fois ñooñu nak ñu indi dañuy indi complication des fois. dañuy xam lu ñu jënd ba pare dem ginnaaw ñu non daf maa nax daf maa jaay nangam fekk ñoom li ñuy jënd gis nañ ko xam nañ ko. wala ñu jënd ko jaayaat ko keneen waxuñu ko dëgg. Mhm. léegi day revenir ci ko ko fi mu ko jox. Mhm. kon yooyu yëpp da indi complication. parce que nit ñi yàmmuñu nit ñi bokkuñu am-am bokkuñu euh, tollin. Hmm. noonu la demee léegi nag loolu dafa indi complication. d'accord waaw moo tax ba léegi euh, race bi boor bu la root yëpp ba léegi ñu ngi ci góorgóorlu mais saabul bul ba léegi mais ñu ngi ci góorgóorlu waaw ñu ci gën a concentré aussi tamit yow miy jënd. Hmm. Euh, ngay ñëw di xool ngay jënd lan la wala nangam wala aussi tamit ngay jéem xam ku koy jaay directement wala yooyu noonu daal da am solo gëstu ko xool. Ah. voilà bañ a bañ a taayal déplacé wu ñëw xool li nga gis ko xool te Sénégal affaire xaj moom dafa bëri affaire intermédiaire eh, am na nit ñoo ne boo na woon ne loo loo ne am naa ko rek ñu am naa si loolu ne bëgg am naa si yow bi jeex na eh, eh, loolu nag moo fi bëri intermédiaire boobu ndax kenn day ñëw ni la euh, laa jàll da bëgg naa xaj te ki koy jënd loo xaj pur cent la bëgg mhm. jox ko somu pur cent mhm. mu ñëw ne laay am nga xaj ma ne ko am naa xaj ñaata ma ne ko quatre cent mhm. yaa ngi dégg de man la quatre cent nga ni non kii ko xaju 200 waaye bu tën bu naay sax bu tànn rek ne bi dama jël 200 man 200 laa am jàpp ci hmm. du la wax sax dama koy jaayaat wala temps laa jaayaat wala nangam du la wax lu ci nekk waaye waaye yu tël ma xaj bu 200 rek bu tugut man ko ah benn booy de am na fi xaj bu 200000 200 hmm. moom mën na ko jaay 200000 mën naa amu jaay la ko hmm. mun waa doxal ma ci boobu man ko booy am na ko soxla benn xaju 200000 de waaw doo jaay mu ne 200 ba mu ne non 200 la dimbale ko jaay ko rek. Hmm. mu jaay ko yow yaa ngi dem jaay ji kooku déclaré ko puissant nga am jaay ko ko nombre si somme boo xam ne da ngay reportage. ci bul sax sonn. non loolu demee yooyu nag dafa mooy compliqué ci lu bari nag. waaw loolu dafa indi complication. moo tax des fois tamit euh, avec nii. Hmm. ñuy communiquer communication yi di jàll nii. waaw dina fa di gën a gën a defaru. Hmm. te dina gën ndax Sénégal moom kenn dëngul des fois bagages yi ñooy xaw a kii nii rek. mais yëpp dina rangé waat dans dans la muy d'accord d'accord ñu gis na fii yor nga fi ay ay euh, à part boor bi lii à part euh, euh, rot yi yor nga fi aussi ay berger allemand yor nga fi aussi ay pitbull mm-hmm. ah liggéey bi naka la demee te man man benn xaj kese laa yor waaye fi nekk nii daanaka dama <laughs> doy sëkk sëkk ndax coono coono <laughs> coono bi ma ciy daj moom maa ngi détail maa ngi détail su ma dikkee gis cage yi c'est bien fait bien propre mm-hmm. xaj yi set et tout liggéey bi naka la demee te ma fi nit ñu nit ñu nit ñu noonu mm-hmm. waaw waaw waaw métti na nag métti na trop métti na trop mais lu tax doo yëg métaay gi. mooy bëgg-bëgg bi. Ah. suñ fi amoon 1000 xaj sax daanaka duñ ko yëg duñ yëg liggéey bi. ndax euh, am na ñu fi nekk kenn daan moo fi nekk nga gis ngeen boo wax ne ñu bëgg xaj ànd ak yow. Hmm. mais ki fi nekk daa bëgg xaj moo ko gën a sa boppam. Hmm. man loolu ma jaaxal muy fàllu moom moo ko gën a boppam moo tax ci côté boobu dama ciy xaw a dal. Hmm. léegi moom su resee su xëyee su bëgg rek moom day res wàllu entretien bi. man su ma ñëwee tamit du ma fi nettoiement bi côté côté man su ma fi nekkee tamit dama ñëw futteeku ndax man tamit xam naa ne man yàlla def na ma dama am <laughs> dama ñëw nekkaat ci du ma du dara day na ñëw nekk ci man tamit su ñëwee tamit du def yi fukki yu aj tànk ak non non dama ñëw nekkaat ci mm-hmm. ni ko wan ne maa la gën a dere mm-hmm. voilà ci <laughs> <laughs> loolu la demee rek aussi tamit ak toute expérience boo xam dañ koy am ci wàllu élevage bi mm-hmm. surtout euh, grand bi nekk docteur ah. waaw ñu yàgg ci euh, nekk ci wetam di ko côtoyer yor xar yeeg yooyu noonu mm-hmm. dañuy am faj gi ak yooyu dañuy xaw a dañuy xaw a yomb faj gi vaccination yi dañuy xaw a yomb dara jot ko dañ ciy xaw a day neex sa ñun ñu koy faj waaw yooyu ñu ciy góorgóorlu waaw ndax dañ koo dañ koo jege dañ ko côté daanaka duñu sunu du suñu mag du sama mag mais sama bàyyi la mhm. voilà ndax moom dafa ma taxaw ci gauche ak droite mhm. la ma taxaw mhm. waaw taxaw famille yëpp macha allah moo tax voilà moo tax euh, faj geeg taxaw yëpp dañ ci dañ ciy taxaw ku ci xuri sax gis nga ku ci xureeku sax xaj bu ci xureeku wala ci xaju acca directement euh, traitement waaw di aussi tamit am sama benn gisee lu ma jaaxal wala sa saaj moom sax dama koy woo téléphone heure bu ne docteur Gabi di ko nuyowaale. ko dafa naqare jot téléphone. non naqare wu jot non man naqare jot ci man. ah man de dafa naqare jot ci man. non daf koy mes man Baye Fall laa wax ne non waaye lebal moom nay la leer dama la koy wax muy leer. <laughs> da nga koy woo téléphone mu jox numéro secrétaire bi secrétaire bi du jël. léegi nag du jël téléphone bi. mais des fois loolu docteur. mais des day bëgg ku wu. man bañ ma déplacé wu dafa naqare jot téléphone moom benn wax dafa koy wax laay fii hôpital la hmm. dara su jotee dañuy ñëw ñëw jar sa nga may woo <laughs> comme man sama genre yi bëgg lu yomb fa lañ naan ko kar kor jurul jeex dafa day fekk <laughs> après soo ñëwee si place am ngay xam ne kii su wuyul téléphone rek dafa métti ndax ma ngay opéré ma ngay faj ma ngay wax ak ma ngay wax ak nàngam day xaw a métti te boole ceeg muy def di génn hmm. boole ceeg di euh, di recevoir nit ñi hmm. boole ceeg di fajaale woo loolu ko jàmbaar la franchement ndaanaan la ndaanaan dëgg waaw te ku ku te même soo ko jutu sax sànni ko message hmm. dina la woo wala mu nànga wala soo sànni yooyu tey tey bu ñu ci ci ci boor yi gis nañu yoon nga femelle bi femelle bi pourquoi loolu alors que gars yi des fois mhm. sama classe gi benn femelle la ñuy lijjanti tuddee seen bopp ngan di éleveur bu mhm. ñu wax éleveur mais E mhm. waaw waaw non da nga koy da nga da nga yaakaar ne yéen femelle yi mâle fekk ay femelle lañ ah waaw euh, euh, a ndaw tuuti par rapport ak. waaw moo tax nga xam ne da ngay jaawale famille ak maal yi mais famille yi ci ëpp. ñaari mala fi ne parce que ay 4 femelles 5 femelles puis voilà yeen yeen ay kan lañ euh, quatre kan ñaari loolu mal jàng berger yi tamit waxi nopp am na yenn kan yi rod yi waaw poil waaw voilà poil long poil court yëpp ñu ngi fi ça dépend ndax am na ñoo xam ne dañuy bëgg poil long am na ñoo xam poil court lañ bëgg mhm. ça dépend waaw kii daal loo ci soxla daal incha allah dañ koy dañ ci taxaw d'accord mais à tout moment moom seen chiyo yi day am quoi dina am à tout moment dina am suñ amul nag dañ naan amul mais am naa ko am d' accord mais koo xam ne fii la bëgg nag. fii la bëgg maanaam lu wóor amul lu wóor dafa gën a gën. waaw su fekkee nag dafa fii nga bëgg da ngay du fekkee euh, am nañ nañ lay suñu amul ñaan la patienter. d' accord patienter tuuti soo patienter fii ak giir bi di nga am. mais du bari muy ñàkk daal. non du bari lu muy ñàkk ndax famille yi moom ñu ngi fii dañuy dañuy tëbba ko jur rek. dañuy tëbba ko jur waaw mais du ñàkk am na ñoo xam ne ni surtout dañuy toog di xaar. Hmm. am na toog di xaar am naa naissance bëwër rek des fois sax man li ñëw ko yëg moo xam sax fi ko yëgee. Hmm, hmm. dañuy ñëw rek daal di daal di roñ yóbbu. am na ñoo xam dañuy tibb jël lu bari sax. jël yóbbu suñ paree daal di yëkkati ba mu togg ay 4 mois 5 mois ñu daal di jaayaat. am na ñoo xam ne dañuy ñëw ba fi seen xaalis ni ni teew seen xaalis ni soo amee naissance doomu diw doomu diw bëgg naa am na ci ñoo xam sa jox ba nii nii sa jox nañu seen xaalis ni ma doomu diw doomu diw laay xaar hmm. voilà kon moo tax des fois lu ci ëpp day jékki-jékki rek daal di waaw su ñëwee rek du taxaw ma damay am problème sa problème mu téye hmm. problème mu téye sa laay am problème mu téyewaat des fois yëkkatiwaat pour ñeneen dama ko hmm. amee problème boobu ndax su ma xasee ba nii na di nga am rek moom bu sax son su ma lekku sa xaalis moom damay su ma xasee ba lekk sa xaalis moom jàppal di nga am moom voilà wala am nga produit quoi xanaa mu yéex mu nangam mais di nga am incha allah d'accord d'accord laay ñu lay ñu ngi lay jaajëfal baax juste que fu ma ko fu ma ko bëggoon jeexal waxtaanee rek. mooy euh, Sénégal léegi yaa ngi wóolu ci walum xaj. est-ce que yéen a ngi exporter waaw fi mu euh nii commencé guñu ko. commencé guñ ko mais ñu ngi koy liggé ñu ngi fekk produit yo xamni ni nii ñee lu ñuy liggéey comme Espagne ko ndax dañuy yor ben champion fee yor ben champion fee. Mm-hmm. ñun dañuy jënd doom fee doom fee boole len kon donc égal champion yo xamni ñom ñu ngi koy am fi mais commencé guñu ko. ndax il faut ndax euh, dafa am yoo xam ñu ngi koy togg ñoragul mooy pédigré yi xaj commencé am këyit hmm. ak yooyu noonu topp ligne bi këyit boobu hmm. këyit euh, pédigré bi suñu bopp la nekk rek wal papa ji am ko yaay ji am ko doomi suñu juddoo fu ñu koy déclaré mooy mooy commencé di problème bi mais hmm. ci yooyu ñu ngi ciy dox par rapport ak groupe yeeg ak sosaan yooyu yooyu insha allah gars yi dox ñu ngi dox baax te dina dem kanam voilà voilà te loolu dinañ dem ba ndax loolu mooy rêve bi dem ba di yóbbu nangam di indi ñun tamit ñu wane seen bopp waaw ci loolay loolay sunu mooy sunu ambition daal mooy sunu biir bi waaw. d' accord élevage par rapport ak éleveurs yi fi nekk parce que yéen seen biir xamante ngeen. ñu nag ñu wax euh, yi xamante nañ daal ñun ñi nga xamante ni moom ay nuus lañ xamuñu dara. Mhm. ñun ñooy gis borom xaj rek ñu ne kii éleveur la mais ñoom seen biir nag. Mhm. xamante nañ quoi. non sunu biir ay ndaanaan lañ ay ndaanaan lañ te dañoo yéenante Mm-hmm. waaw ndaanaan lañ te dañoo yéenante des fois ñi ci bokkul ñi ci bokkul ñu ci bokkul yor benn wala nekk xale te bëgg a war a war a taataan mm-hmm. waaw ñoo ñoo nag ñooy indi complication yi mais kandam yi xamante nañ kandam yi dañuy demal dañuy toog di jokkalante mm-hmm. nii nii rek gis nga waa Gambie mooy wane nii nii nii rek ay waa ndogo mi nga doon woo. kooku champion la newul ci groupe doo ko dégg ci groupe bi sax. day jékki ay kilifa yoo xam ne nii dañuy jokk ay grand laay gay dañuy jokk ñooñu doo leen ci dara. d'accord ah, ay grand bay doo leen dugg dañ dañ lay woo cak-cak mat bi tas ay capo ñoo xam da nga leen dégg mais des fois euh, booy dugg ci bagage yi dañuy ñëw rek yor benn wala yor nangam saa ñu commencé di waxtaan ak du saafante grand yi hmm. mais déedéet dañuy ñëw rek commencé di sànni xel non non non lu nag ah. déedéet fekk àdduna doxewu noonu ah. même soo nekkee champion sax da ngay war a taataan ci booy yi hmm. te booy tamit ñoo war a taataan ci ñoom la war jëkk commencé d'accord mais à part ça mais Kandami moom noonu ay ndaanaan lañ. ñoom ñoom dañuy dund fair play quoi. mais yooyu yëpp après ça passe mais du fur et à mesure nga ci yàgg rek. Hmm. ñoom après dañuy dem ba am esprit boobu dañu mais quand ñu ngi. góorgóorlu dafa mel ni Sénégal fii ñoo gën a cher xaj ay Côte d'Ivoire ak ay Bénin ak yooyu ah. waaw ñoom ñu ngi commencé cher xaj. waaw ñu ngi commencé cher xaj. parce que ñu aussi tamit ñu Sénégal liggéey bi ñuy liggéey. Hmm. ñu tamit dañuy ne xaj bu cher. Hmm. yor beneen femelle bu cher boole ko te ñu lu ñuy jëndee sax duñ ko jaayee. xaj bi nga njëkk a importé ñaata ko jëndee. Euh, 1500 million 1 million waaw 1500 euros di ko paas yu sew saan yooyu. d'accord 500 mhm, euros jëndoon naa fi benn karoot ko joxam fii rek fii laa ko jëndee benn copain sama benn grand wayante ay docteur Obedi njàmbaar la ndaanaan la. Mhm. champion champion bu ne lay indi Sénégal. Mhm. jaay na benn famille boo xam ne mu ko jaay 1 million 500. xam nga yooyu waaw yooyu nga. boo commencé dégg prix yooyu xel day dal. waaw ah, léegi gars yi ñu ngi ñu ngi bëgg a xaj quoi. kon donc gis nga prix yooyu ñuy jëndee yooyu. mais est-ce que ñun duñ ko mën a jaayee. duñ ko duñ mën a jaay au moins ko kenn ñëw na bëgg ñu la damaa bëgg pur sang. ngeen ko 400 mu non non 200 la am. dama la ah 200 de am na. waaye nag ci xaj yi nga mën a amee 200 de. bëgg nga laay jox la rek. mu ne nga ne ko waa indi la. mu jox la acca ndax duma ma kee njaayam du ma ne awma rek falak soo amul dama naan am na fee ku ko am deuxième catégorie deuxième catégorie am na <laughs> deuxième catégorie ndax kee am na koo xam ne mu ngi toog ci ginnaaw ni ma laay dimbali ma jaay ma sama xaj yi mhm. xaj bëgg naa koo jaay mhm. kee ni deux cent la du ma wax awma rek daal di croiser le bras mhm. naa di ko ah am na ko am ok da am na xaj bu 200 ma booyal leen wala nga ma waaw wol ma ko wala mu nanga. Ah, mais di nga leeral nit ki daal ne premier catégorie choix baa ngi. deuxième choix da nga ko koy leeral ñoom ñooy da nga ko koy leeral ñoom ñooy yor seen jikko jawaar rek da nga koy leeral da nga koy leen ko ah li ma lay jaay de lii la. mu ngi nii papa jaagi yaay jaagi nii wala xaj bi li nga jëndee somme bi. Hmm. ndax loolu mos na ma dal ci benn ci benn benn kër ma dugg. Hmm. Euh, nga ci laay comprendre bari ndax maa dugg benn kër. Hmm. benn waay ni ma kaay xool sama berger bi ma ñëw xool berger bi mun waa ah, sama berger bi de sa waay sa waay ji ma ko jaay ne ni pur sang ma ko ah ah pour wax dëgg lii moom du pour cent. mënu ah, waaw pour cent de saa te waa ji pour cent ñu waxante ma ne ko ñaata ko jëndee mënu ma soixante dix xaw ma soixante quinze. ma ne ko lim la jaay moom nga am. Hmm. lim la jaay sax war na jar lépp loolu. parce que ah. li nga jënd prix bi nga ko jënde lii nga mën a am. yow yaa nax sa bopp mais waaju naxu la. waaw ah, parce que berger allemand bu bu poids long daal di def euh, courbe ak nangam ak pant ak nangam kooku deux cent mille lay jar deux cent cinquante mille cent mille da koy mais mu jaay la 70 xaw ma nangam dikk na nga bëgg a yàq dara yow li mu la jaay moom nga am moom nga mérito lii ma macha allah li mu la jaay baax na. yaa ko nax waaye nangu la baax na ci moom <laughs> <laughs> te yow yow nga xaj. gis nga lu ci xaj <laughs> defee gars yi day nax seen bopp rek waaye kenn naxu leen ñoom ñooy nax seen bopp rek. d'accord laaj ñu ngi lay ñu ngi lay jaajëfal baax kontaan nañ trop trop trop bëggoon naa tamit gars yi mu waxaat ko parce li may dem si éleveurs yi bëri nañ li may dem si dresseurs yi bëri nañ. Mm-hmm. waaye dee ko natt moom deel def par tout tout di dugal man loolu daf maa intéressé. man su nekk nii ñeme naa leb Sénégal de mais waaw waaw mënut a ñàkk loolu mënut a ñàkk fi Sénégal lañ ne. Mhm. loo gisee natt yeeg kottu kottu fii lépp dañ koy bëccëg. waaw waaw li bëccëg yi ñëpp am ko. waaw mais problème mooy yow mi di yow mi la lu mhm. la mhm. wax lu fi ne. ndax ñun sa liggéey wala sama liggéey da nga dem foo xam ni boutique ba wala fenn di nga di ba jeex na nga daw ba di la gaz ba jeex looy wax. soxna si yow nga ko demal boutique ba. te pourtant kooku dalaa lebal boutique. lu tax ñun tamit suñu liggéey des fois mënut a ñàkk loolu problème mooy doo yor xam lu a bon nag mooy nga yor ba pare. Mhm. naan nangam ak nangam loolu moo bon. d'accord voilà moo bon mais jàppalante demalante dikkalante moom mun fii la fii la doole. waaw ndax ñu ngi Sénégal. ñu lay gërëm bu baax a baax sa adresse bi fii fan la pour ñi nga xam ne bëgg nañ fi ñëw man intermédiaire yi baax nañ trop waaye maa bëgg ñoom ñuy pause benn moment nag. Mhm. ñu bàyyi ñuy jokkoo gars yi may gërëm ki ma njëkk nax ci lawbe. Mhm. ah nu mu tuddati kii sax nu mu tuddati waay. Euh, Fat <laughs> Bamba Bamba Bamba mi ngi dëkk 50 moom ma njëkk a <laughs> nax ci xaju lawbe ma koy diri kaase loolu. baax na baax na nax bi baax na ci de. nax bi ah, tax tax tax nga yeewu. moo tax fi nekk may si ma koy si rek. <laughs> kooku da ko fa di fay kooku moom da ko fa di fay Bamba moom da ko di fay ci. Ah, bëgg xaju lawbe moom dama si Bamba am na ko ñaari yoon nga ko war di fay mooy ci tour bu sell bi. ak ci ak ndax ju la ndax ndax nga yeewu. kooku da ko war a ko war a fay ñaari yoon. <laughs> da ko war a fay ñaari yoon adresse bi lan la. waaw fii mooy euh, soo nekkee soo jógee maanaam fii mooy Kër Mor Ndiaye. Kër Mor Ndiaye da ngay jógee champ de course. jël mi dem yoonu tuubaa gi. Mm. soo ñëwee ba Kër Mor Ndiaye ci arrêt foofu koy Kër Mor Ndiaye. à droite mooy Kër Daoud Cissé. a droite soo tuuti rek ci wetu euh, péage bi mooy seen bureau bi. Hmm. foofu la rek sorewul. voilà soo jëlee ci numéro bi rek woote rek moom neex naa gis kër Mor Ndiaye Kër Daoud Cissé. affaire ñi nekk ay Touba ay ay ay Kaolack. Mhm. Tamba. Mhm. Mhm. nga xam ne ñu bëgg xaj bi ñëw ba sur place kooku vous avez les moyens ñu yóbbu ko ba ci moom. waaw su fekkee ci xaj yu mag yi. su nekkee ci xaj yu mag yi dañ ñooy taal suñu oto yóbbu ko. dañu jaay xaj yu mag aussi. xaj yu mag dañ koy jaay. ah dañuy jaay ci xaj yu mag. xaj yu adulte yëpp bu mag ak ndax am nag ñoo xam ne nii amuñu temps wu yar Mhm. am na ku fi nekk fàllu yenn euh, xaj yu mag yi. Mhm. suñ moom moo leen liggéey. d'accord su leen liggéey tenue de place ak soo saan yooyu après. daal di ah loolu c'est intéressant. voilà non non non bëgg neel bëgg neel race bi laa bëgg mais adulte laa bëgg. d'accord mën na la defal euh, tenue de place beeg yooyu noonu yóbbu su fekkee loolu déclenché mu xool ñoo fekk ci prix xéwal su demee fekk ba environnement bi nu mu mel mu xool na la ko mën a déclenché mu mu déclenché ko ci noonu waaw ah, euh, am ñoo xam ne damay jaay ji euh, Gambie damay jaay ji Guinée Conakry damay jaay ji Mali yooyu yëpp damay jaay ci foofu ay xaj voilà yooyu yëpp aussi tamit te ñooñu tamit ça dépend ci race bi ñu bëgg aussi hmm. du cachet ma am na ñoo d'accord am na ci ñoo xam ne dañoo bëgg xaj bu bu présentable mm-hmm. ci ñoo xam ne maliens yi dañuy ñëw di jënd xaj bu présentable am na ñoo xam ne ñaan mm-hmm. bëgg daal mën nga ko am mais bu ñu béyee ndax yow muy jënd nga xam li nga jënd lii la kuy jaay tamit ni la lii ngay jaay et puis voilà quoi d'accord mm-hmm. kon di wax daal euh, di gërëm ñëpp di sant ñëpp gërëm aussi tamit monde élevage yu canin bi xam ñu fay ñu leen seen prix comme li ngay wax bëwër bul yi dafa metti hmm. waaw dafa metti dañuy juddu 15 ñu def añ tëdd seen kaw wala nga nekk ak ñoom dafa metti mhm. waaw moo xam ñoom maanaam ba léegi amuñu seen prix di leen gàcce ngaalaam aussi tamit yarkatu xaj yi moom metti na torop torop torop mhm. ndax élevage canage Sénégal fii surtout faj bi mhm. surtout faj bi dafa metti faj bi dafa metti ndax euh, ñu ko ñu fi mën ci xaj néew na néew na loolu te ñu ngi ci góorgóorlu baax surtout yenn feebar yoo xam ne dafay am mu bari torop waaw te des da ngay vacciner sax mu dal leen Hmm. kooku tamit war nañ ci gën a góorgóorlu hmm. waaw moom laay wax ne naa leen euh, waa bitim réew comme dañuy defar garab yi hmm. war nañu ñëw xool sunu environnement yi ak sunu euh, température yi xool nangam ak nangam pour mën a faj feebar yi ci ci dëkk xaj yoo xam ne ma a am sama bopp laay wax ko mu a leer damay vacciné euh, contre parvo bi mais ñun ñëpp am nañ parvo daan moom du ci climat bi wala du ci environnement bi wala du ci température bi wala du ci nangam yooyu yëpp da ci jar a sóoraale ñun xamuñu ci loolu ñun dañoo passionné rek bëgg xaaj rek di ci liggéey di ci góorgóorlu di ci jéem a yokk suñu expérience mais ñu am na ñoo xam ne war na ci gën a ñun tamit état na ci gën a góorgóorlu tamit comme xam monde élevage fu mu toll ci wàllu bu ne ndax si xaj sécurité la. mais côté xaj ñoom état bi def def si dara. non def ci dara parce que mais te ñoom kilifa yu bari euh, seen kër foofu dem am na xaj. Hmm, Sonko am na. ñëpp koo ci dem. Macky Sall amagul waaye na toog rek. Sonko moom am na. <laughs> mu ngi noonu ñoom ñëpp am na xaj kilifa yu bari ay kilifa dañ fiy ñëw ay kilifa yu bokk ci état a lim ah. kilifa yoo xam ne ci état bi ñu ngi ñëw. moo hmm. leen di jox xaj. Hmm. waaw mais euh, benn yor ñaar la ñuy yor daal di sàmm seen kër parce que mën nañ ko. et voilà mais en tout cas war na ci gën a jàppale loxo ndax lekk gi métti na. croquette yi cher na. Hmm. Hmm, vingt cinq mille trente mille. daanaka mooy gën a cher sax te ñaari fan ñetti fan lañ koy def. moo gën a cher dépensé ñaata si ñaata si ci croquette ci journée benn croquette moom benn saako croquette sa doyuma. non benn sac croquette doy ma 25 000 30 000 non benn sac croquette doy xaju fi sax xanaa ñetti sac kañ moo fi xaj par jour dañ koy xool ni koy organiser rek mhm. waaw dañ koy day jàll waaw des nga soxla yenn médicament amut ah, xel nangu na loolu waaw euh, comme dañoo nekk ñoom defaruñu dañuy jéggaane rek lu ñëw nañ mu ñëw noonu rek ah, <laughs>

incha allah dina baax. d'accord jërëjëf laay ñuy gërëm waa kër gi yëpp ñoom sëñ Fallou ñu ngi leen di gërëm élément élément élément élément Macky Sall bi am na fi benn élément. ah nu mu tudd. maam Abdou maam Abdou Aziz. am na fi benn benn benn élément moom tamit kii élément Macky Sall la ñu leen di gërëm ñoom ñëpp ñëpp. gars yi intermédiaires yi joxe numéro mu ngi gis noonu muy affiché si suuf. bu leen kenn naxatee si ci jox ma ma jënd la nangam la nangam race boo bëgg soo koy téléphone na la wax am na fi boo ñëwee nga gisal sa bopp su ko amul na la wax amu fi nga dem feneen ñu bàyyi intermédiaire yi après taxawaat bi jooyaat xaj bi màtt na fii xaj bi def na lii xaj def na laa fekk en réalité yow yaay cause bi quoi bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yow yaa ko fii fekk nañu fi ay pitbull fi <laughs> ay bu leen ñëwee di gisal seen bopp gis ngeen ko yaa <laughs> ngi noonu jaa ngeen jëf